gisee tey day fàttaleku bés boo xamante ni naqar ak tiis moonu ci daaloon suñu naataango bi ñuy wax Mouhamadou Fallou Sène euh, bés ni tey euh, la ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi boomoon ci anam yoo xamante ni anam yu ñaaw anam yu tegwul fenn parce que suñu naataango boobu deful woon lenn loo xamante ni dëppoo na ak yoon mais doon xeex ak ak yelleefam mooy li ñuy wax bourse loolu lañ doon réclamer ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi ci lañ dugg fii si biir université violé li nga xamante ni mooy suñu ak ak suñu yelleef ba boom suñu camarade di xeex ak ak yelleefam nga koy bundu xotaal di ko xoqataal di tirer ay balle réel ci ay étudiants mel ni ku nekk deuxième guerre mondiale ça c'est inadmissible ça c'est déplorable te mbootaayu xeet nga xamante ni moom mooy coordination des étudiants de Saint-Louis nekk fii si daara ju kawe ji ndar ji ñu ngi ñaawlu loolu bu baax parce que tiis bi ak naqar bi bi mu amee ba tey coordination li ñuy wax xeetaayu xeet mbootaayu xeet gi ñuy wax coordination des étudiants de Saint-Louis bu ñuy wax Patar rendre visite bi daal di yeesalaat seen i njaal yeesalaat seen i seen ñaan pour que suñu naataango boobu yàlla mën a wàcce yërmandeem si kawam ba fa mu nekk gënal ko fi mu jóge mais ni tiis bi tamit ak naqar bi ba mu amee ba tey euh, gis nañ ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon nekk ay autorité euh, defuñu si benn jéego boo xamante ni am na dayoo trop pour que ñi nga xamante ni ñoom ñoo def jëf ju ñaaw jooju euh, yoon mën a dal seen kaw yoon mën a dal ci seen ndodd mu nekk loo xamante ni ñu ngi koy métti lu trop dossier bi fi mu toll mu ngi traîner ci tiroiru justice yi ba tey amuñu ci lu leer ñu ngi koy ñaawlu bu baax parce que bi ñu demee rendre visite famille bi jëlee nañ fa loo xamante ni c'est déplorable parce que état bi dafa décidé woon accompagner famille bi ci projet bu ñuy wax euh, pisciculture mais dañoo gis ne dañoo mujj sax teg famille bi ay coono di ko andil ay dette di ko yóbbu tribunal yéeg a ko wàcc di signé ay papiers yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee